projet bi ne bu ngeen ko gisee ni mu demee nii dara taxu koo jóg lu dul ndaw tàggat ndaw ñi ndaw dafa jot ci réew mi yàgg naa jot sax waaye léegi la gën a tar dañu ne il faut ñu xale yi ñu jox leen seen gëdd ci réew mi parce que réew mi suba mun nar a mel rek xoolal ci njaboot ji ñu am tey ñooñu ñoo la koy wax kon nag mu doon loo xam ne tamit USAID moom yàgg na xalaat ci lu mel noonu ay at yële ca gannaaw mu tëraloon mm, mu mel ne xëy na tax dañoo xamoon ne lii di ñëw lii raam a ngi raam di jëm ci ñag bi ci la ñu taxawal euh, projet bi muy toppatoo maanaam xale ñi fi jaar ñëpp wax nañ ko dañuy tàggat xale bi pour mu am xel mu sell mu set xol bu sell bu set mu mën a jëfandikoo xam-xam buy nekk ci moom bu dee day jàng ci l'école mais euh, moo xam l'école bu ndaw la moo xam l'école université la mais euh, ak tamit am xel mental maanaam bu leer ah di xalaat xalaat yu jub bañ a nekk di doon di koo xam ne day mere ñëpp xuloox ñëpp saaga ñëpp def daal loo xam ne du noonu kon nag loolu moo ko tax a jóg mais ma xamal leen ne projet bi tamit ba jëmale ko ci ñi nga xam ne am nañu wërsëgu nekk ci euh, daara ci école yeex yooyu li ñu naan ci nasaraan inclusif projet bi dafa inclusif bàyyiwul benn xale xalé bu jigéen xalé bu goor ñu ne ci daara ja ñu nekk ci ci l'école ya ñu nekk daal manam fuy xalé di di doomu Sénégal ci biir projet université ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation ndax ndaxte ñom nak ñofu jëk tambalé a li naan jëfé xam-xam mais dañ koy vulgariser li ñu am ci ay résultats de recherche yëpp ñu dem jàppale ko suñu jigéen ñi nekk ci àll bi di liggéey jàppale ko xale yi ñu mën ci am ay xëy kon nag loolu mooy projet bi ngeen di dégg ñu koy wax 4H xew na nag ci àddina xew na ci jamono naam mu ngi cosaanu États-Unis tey ñi nga xam ne ñoo ñu jàppale ñu suñuy partenaire xew na fa ëpp na ay téeméeri at waaye mu ngi mu ngi euh, mu ngi fépp ci l'Afrique de l'Ouest mu ngi tamit ci naar yi mu nga France mu nga fépp ci àddina kon Sénégal mu ngi ciy doog a jot gannaaw yàlla USAID moo ko fi indi tekk ci loxol ministère de l' enseignement supérieur de la recherche et de l' pour dara lu dul ñereñu xale yi ci Sénégal yëpp. projet bi euh, dafa am solo lool parce que euh, si ndaw yi la jublu liñ ci yëngu ak liñ ci yaakaar mooy. bërëb yi ñuy jàngee jàng mu kooyo mi lañ lañ mën a lëkkaloo ak yeneen ministères yi jublu si dimbale leen si ñeenti fànn benn bi mooy sol leen xam-xam mais xam-xam boo xam ni dafa jublu si euh, soxla bu nekk si biir askan bi si seen dund ak si seen développement beneen bi mooy jàngal leen jëfee xam-xam boobu bi ci topp mooy moo jiitu sax ñee ñaari mooy wérgu yaram ndax nit mënoo song dara ba daan ko se wéruloo bi si mujj mooy loolu dugg ci seen xel ak si seen xol cest à ñu xarañ ci ndax yàlla mun ci def barke projet bi dañ ko lal si

parce que mbirum mbéy non seulement dafa bokk ci une priorité développement bi waye dafa nek lu pratique loo xamni ndëriñ njëriñ bi dafay feeñ ci saasi axe boobu la ñu jël alors tay dañu dajalé ak wa USAID ak ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation ak yenen ministère, parce que dañu japp ni du ministère bi rek moko wara yoré dañu waxtaan ak yenen ministère donc ñom

dañ koy def ci programme dawal ko ba fii 2022, mais dañ ci boole seet ñoom nan lañ a parce que li projet bi mu am lu indi loo xam ne dinañ continuer sans que USAID continue chaque année di